dem importer ji ay nit indi ci suñu biir quartier bëgg leen waxloo au nom de notre quartier te fi ñu ko doon defee ak sama kër benn la ma génn taxaw sama bundu kër di wax ak journaliste yi pour xamal leen ni ñii dëkkuñu fi tey bu fi waa koñ bi génnee léegi daja fekk ñoom incident mën na am ma jóg di ko wax benn benn vigile xaw ma vigile la xaw ma nervi la daf ma ma bëmax ba ma toog je me suis senti frustré moo tax bi mu ñëwaatee di ma teg loxo bi mu ñëwaatee di ma teg loxo ma ne ko boo ma tegee loxo ma nangamtaan léegi nag ka bëgg a génne nangamtaan rek lay génne saaga bi lay génne mais ñun ñu ñu ay saagakat ay nit di ñu yar lañ ñi nga xam ne peut-être dégg nañ ko te mu dérangé lañ maa ngi jégalu ñëpp ñu li ñuy xeex nii

yoruma paaka lenn rek laa mën sama làmmiñ laa am pour dissuader leen ma jëm leen dissuader donc nag ñiy partagé loolu nañu xam ni